mbooloo mi gan ñëw na tey nun ñépp nan ko dalal yaatal ko jublu ko ak mbég may ko it te jure te weeru koore ganu mbooleem ku yàlla soxal nun ñépp war nanu koo may aajo léegi mu wéy ku muñ te farlu ci day xëy benn tàggu la dem balaa ki cant yu dootul jeeki kooma ki may salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi xam ne yéen a bàyyi xel sunu chaîne Daara Djolof Vision نايلين يدلن زيارة دلن بالاقتي دلن بالدلن يا رمضان مبارك رمضان الكريم ندك نافلة guddi ñaar fukkeel ak ñaar ku ci julli ñaari rakka bu ci ne fatiha benn yoon soor laxla maanaam sabbi isma benn yoon wala astaghfirullah alazim sabbi isma ak inna anzalnahu ak qul huwallahu ahad ak falax ak naasi lu ci ne ñetti yoon soor laxla ñetti yoon sooratul xadri ñetti yoon sooratul lixlaas mutaawizayni sooratul falaq sooratul naasi lu ci ne ñetti yoon yàlla dana ko tabaxal ci àjjana juróom-ñaari fukki dëkk yoo xamee ne bu ci ne junni ñenni lay am junniy pale fukki dëkk yoo xam ne junniy ñenni dana ci nekk ñenn lu ci ne junniy néeg dana ci nekk yoo xam ne wërsu xaalis lay doon néeg bu ci ne junniy lal dana ci nekk lal bu ci ne junniy soxna dana ci nekk kon nekk mu nekk loo xam ne lu am solo la yàlla si borom defal la ñuy ngërëm ak tawfeex barke alxuraan karim yow wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yu am njariñ ak ndogoo kii xëdd faw yu doy